عليك صلاة الله ثم السلام فطرى الفاتح لما benn waaye bu may interview bi ci Baye Niass FM mu laaj ma mu ne ma bés bi jamono imaam mu ne ko bés bi jamono imaam dañ daa ñëw leen di imaam ñu ngi nii teew nañ mu ne seede naa ne teew ngeen waaw wala tara isala bu arbu zuxub at bi yëpp tooj nañ nag jaawoo kana ñu ngi nii nag jaay kaa ñu ngi nii nag toog ku ci dana wax ñetti astafurlah warel ne fastafurallah wastafurallah bu rasul la am mm-hmm. ku ne faa dajal sa astafurlah moo waral même booy ziyaara baay balaa ngeen def dara da ngeen wéet astafurlah cent astafurlah cent fois doog a ziyaara baay ndax jaawoo ka boobu dikk na la jéggalu yàlla nga jéggalul ñu pour yàlla baal ñu imaam moo ko waxoon donc ci loolu ziyaar booy ziyaara baay sax da ngay jàng astafurlah cent ziyaara baay ñaan ko mu yàlla mu ñaanal ñu yàlla mu jéggal ñun nag buntu baa ngi nii waaw ñu ne ko daan defee buntu siyaas ak ñu ñëwee moom moo xam lu ñuy ñaanal ñu rek ñu def

wala ñun dañuy ñëw fii pour jégal pour yonent bi sallallahu alayhi wasallam jégaluñu yàlla yàlla yàlla jégaluñu wallaahi mënuma mënuma doon xaram dafa waxtaan xamuñ dara naar euh, dafa laaj dafa laaj foofu mu ko yow lu tax ngeen def ko yow ñoo xam ne ay juxaan leen xamuñ dara mu foofu fu soobu war moo fa baax mu indee ñu am xam-xam kon dañuy bàyyi ni njëkkarante ji mm-hmm. moo tax il faut ñu indi ñoo xam ne xamuñ dara nga xam ne dañu leen gëmal dañu leen gëmal mooy du nekk du nekk xaram la dëgg la lii dama ko xooloon du ma xam xikma bi macha allah loolu loolu la ko wër la yow buñ la dénkoon raw ma ñëwee doo ma tere da daan ma raay yow raay ñoo sori sori way seen seen ki rawdo yi mm-hmm. seen naa seen seen nafis nit ñi doon ñaan ñu def dañuy raay fu nekk ci xëccoo di def lu nekk kenn kenn doon kenn doon benn bopp. wallaay Aziz wallaay wallaay. te yonent bi loolu su ñu defoon su ñu defoon loolu. loolu daanaka kenn. laa ilaaha illallaah. moom su su laanee gaa ñu xaraf. <laughs> waaye ñun fii ñëw moom xaraamul ñun dañoo ñëw moom pour barage yi jokkoo dàtt fi rek hmm, yàlla yàlla guddal sa fan yàlla may la wér sa mbootu bàyyi sa barke bàyyi sa lépp bàyyi yàlla nag fay jëw nga ko na ci at ci kanam wér ci barke bàyyi nga si aara ko mbébé ji nga sëmm yëpp yàlla na ko yàlla mu tëf ci barke alxuraan yaara ko say taalibe ngi ne ñëw rek fedd la ko woon na ñëw nañ ñu ngi leen sant bu gërëm fu ngeen nekk ak fu ngeen nekk fu ngeen teew fu ngeen teewut xol bi daal ci gàttal daal benn la. alhamdulilah wallaahi. mun ne soo teewee ñu wan la ko. dëgg la soo soo euh, fàdd euh, ñu war a demee. dëgg la dëgg la si. ñun suñu xasee bëgg rek bëgg nañ. alhamdulilah. te bëggeel la commencé. Mm. déedéet suñu bàyyi la commencé. wallaahi wallaahi mu fonk la. Mm. teg na fu kawe. moo tax yaakaar naa li nekk ci xol bi daal. alhamdulilah yaakaar naa moo ëpp lu ñu wax. dëgg la dëgg ji àgg mm. nga àgg foofu. alhamdulilah rabbil alamin ah, yàlla na jaara dem. amiin amiin ñii itam daa ànd ak yow. Mm. topp topp ci yow. Mm. ci yow barke. di sàkku ci yow teraanga ci yow wërsëg. yàlla demal yàlla. ñëpp leen ko ñuti ñëpp uti ci saw ci gën yàlla amiin yaa rabbi ñaan yàlla yàlla fa ñaan yëpp kon waa ngi noonu. waxtu baa ngi noonu. maa leen di seede ne yéen a ngi ci yoon. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah Cissé. amiin ñaar bi Cissé. amiin ñaar bi Cissé. amiin amiin amiin ñaar bi. amiin amiin ñaar bi Cissé. amiin amiin ñaar bi Cissé. amiin ñaar bi. amiin amiin ñaar bi. amiin ñaar bi Cissé. amiin ñaar bi Cissé. amiin amiin ñaar bi Cissé. amiin ñaar bi Cissé. amiin amiin ñaar bi Cissé. amiin amiin ñaar bi Cissé. bëggeel dafa am solo yàlla dafay yokk di wàññeeku ñun nag yal na yàlla saxal suñu bëggeel amiin yàlla amiin yàlla bu mu sax ci benn place amiin yàlla nekk yéen gën a jëm amiin yàlla amiin yàlla bi suñu ko yàlla defal amiin yàlla bi foofu suñu njëriñ la dem nekk suñu njëriñ la xel amiin yàlla bi suñu ko defal yàlla gudd fan yàlla gudd fan ñu ngi leen di ndokkeel ci guddi gii nii bis bii mm. bisab ziyaare bisab ndollal mm. ndax ziyaara borom xam-xam wax ne mooy ziyaada mhm. ziyaada mooy ndollal mhm. taalibe bi waxtu jógee ko këram mhm. moo xam dafay dox moo xam dafay duggoo oto moo xam dafay duggoo bi yof waxtu mu jógee rek xamal ne mu ngi yë mu ngi yéeg ci màqaamaay nekk macha allah waaw ci lu amul ràpp. macha allah kon yéen ñu yàlla defal la. amiin yàlla tànk yi ngeen dikkee. ay a yàlla ba ñun ñëpp ñu gis ko. amiin yàlla bi si. suñuy jëm. amiin suñuy yëngatu. amiin suñuy dal. amiin suñuy njëbat. amiin yàlla bi. yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy bëggante ngir yàlla. amiin yàlla bi si. di toogaale ngir yàlla. amiin di ziyaarante ngir yàlla. amiin yàlla bi. bi jaay bisimilah. amiin ah, balaa ñoo dem xanaa comme ay journaliste tey may nekk journaliste bi jamono bàyyi moom. Eh. suñu Aliou ni daan mel ci bés bi ak mag ñi bu ñu daan ci ziyaara ji bàyyi bu ñu bés bi jotaat nii. li nga xam ne ñu fekkee naa ko. Hmm. Sëñ moo xam bis bi la moo xam dul bi. Hmm. moo bi ci biir Sénégal la jógee ko moo xam ci bitti Sénégal. Hmm. waxtu wi ak saa yi mu naan njëkk def ak ñoom mooy ànd ak ñoom ñu dem ziyaara ji sëñ mu ànd ak kër gi. macha allah. di leen nag digal di leen tekki tànk yi xam ne ji ci la sëriñ bi nekk ci liggéey sëriñ bi ci sàmm li nga xam ne ji moom la ci la sëriñ bi nekk te loolu li ci gën a ëpp li nga xam ne mooy gën a raw mooy dundal jàkk ci julli juróom ci wasifa ci toog jàng ci lépp loo xam ne ji loolu ci lañ nekkoon loolu macha allah ziyaare mhm. ak lu dul ziyaare yëpp taale mhm. bu ñëw ànd yow dem bi ca sëriñ bi mhm. ndax xam ne ne ndoolal li yëpp mu ngi foofu ànd yow ñëw teg lay tamit ci li nga xam ne ji moom ci la sëriñ bi nekk te ziyaare loolu moo xam kenn la moo xam mboolool moo xam ne biñ tukki la lépp bis yëpp rek bis ziyaare la waaw sëñ moom ginnaaw Baye mbay rek la doog a wax ci ziyaare ba su jël kàddu ci kanamu baay parce que yenn kasitu ziar yëpp daan nañu ko dégg bàyyi mbay rek lañu daan dégg mu wax. Mhm. sëñ mhm. man fekke naa wala déglu naa lu dul benn ñaar yoo xam ne mbooloo moo xam ne bàyyi ngi toog. bàyyi mhm. bee ngi toog. sëñ Aliou ngi toog. yeneen mu xam ne ngi toog. macha allah. ndax bàyyi mbay. bàyyi ni mu ko tuddoon Magu Taalibe. Magu Taalibe. sëñ Aliou. tur yi ko bàyyi tuddee bëri na lool. bokk na ci baabul xadra bunt bi nga xam ne ji ku bëgg mhm. kenn mënta dugg ci péey bi mhm. du may da nga jàpp mhm. saane wujj dégg nga baati leen nag tamit xaadimul xadra ki nga xam ne ji mooy liggéeyal péey bi liggéeyal taalibe yi fu mu mënti teg bàyyi lu mu daan bind lool lu mu daan wax ab taalibe taalibe lu mu daan jox ab taalibe ba ci ay doomam lu mu leen jox ci wàllu loo xam ne ji yokkute la ci dafa la yebal ci ñaar kon loolu. Mhm. duutoon loo xam ne ji. Mhm. lu ñuy wax la. Mhm. wala lu ñuy def la loolu loo xam ne moo fi nekk. macha allah macha allah. ci boor boobu. amul fenn foo xam ji. waaye am na ku fa teg. palaat bi nga xam ne moom ci la. macha allah macha alhamdulilah tey tamit bépp taalibe bu daan ñëw bépp bu xaddam ku mën doon moo xam ku ñuul la moo xam ku weex la. la jaar sa digganteeg bàyyi sëriñ loo xam la ca lim leen daan jox tamit. lijaasa hmm. moo xam lijaasa la moo la moo xam lu mëtti la. Hmm. soo demee da nga fekk na Sëñ Aliou moo ko bind ci loxo Sëñ Aliou. macha allah andi ko bàyyi si. Hmm. loolu mooy li xam ne. ñoom ñëpp. kenn ku ci nekk am na place. am na ay maqaam. waaye ñoom ñëpp yi tamit. Sëñ Aliou. bàyyi fi ñu ko teewoon tamit. macha allah. mu ko joxoon tamit joxul ko kenn. dëgg la mu ko ko kenn. lépp loolu xam ne ji. Mm-hmm. ab taali bi xam na ko ci pays bi. Mm-hmm. Sénégal loo xam ne ko. Sénégal bi la toog diggante la toog diggante ma bàyyi. Mm-hmm. yàlla ko xam am <laughs> diggante bàyyi ak moom diggante ba bàyyi rek ko xam. ko xam macha kon daal moom mooy jàngal taalibe yi nu ñu nekkee taalibe. ndax loolu mën naa la jox mën naa la ci jox loo xam ne yàggu dara dara dara. Sénégal yi bi feebaree. dégg nga mm-hmm. ba xam ne ñu ngi ci yoon pour xëy na boromam wax na Imaam Hassan mm-hmm. man fekkuma ko de mm-hmm. waaye Imaam Hassan wax ne ko dégg naa ko tamit feneen ne ko seetal ma li nga xam ne ji moo jaar sama diggante sëñ bi ci bindante loo xam ne ji dafa xaaju ci soxlaay maanaam ci secret yi nit ñi nga lakkal ma Allahu akbar Allahu akbar te tamit lépp jooju mu xamoon tamit mhm. mën naa togg ab ndaw sax mhm. xam sa lépp mhm. waaye mënt am dara loo xam ji da nga wax moom mu feeñ kii xamal na ma dara wala nangam nangam allahu akbar allahu akbar jërëjëf sëriñ bi jërëjëf sëriñ bi alhamdulilah ñu war ziyaada la <laughs> amiin faa tey jëstalaat fatiha yàlla def ay taalibi amiin yaa rabbi barke suñu yëngatu suñu amiin amiin yàlla wante jigéen yàlla wante njëtaay amiin yàlla amiin yàlla amiin yàlla bi jaay bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى عالي قدر مقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مغلق والخاتم لما سبقنا سراق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى عالي قدر مقدار عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين